ñu wax ci leneen euh, dogal tukkee ci conseil des ministres ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiital pharmacie nationale d'approvisionnement di Pape Birame Ndiaye am na keneen ku ko fa wuutu ñu tabb ko bees muy Annette Anne Seck kon na am na njiit lu bees geneenu tabbin muy présidence assemblée nationale soxna yi nga xam ne ñoom ñoo tënku ci parti socialiste ne bu ñu sañoon ki nga xam ne moom mooy Ousmane Tanor nekk seen mbër waaye leneen loo xam ne yëkkati nañu ko nii mooy képp koo xamante ni si Benno Bokk tànn na ko ngir mu samp ndëndam ñoom dinañ ci ànd ak moom ñu déglu Aïda Sow Diawara ki taataan ay kàddoom mooy Daniel Diouf ak Alioune Diagne. Benno Bokk Yaakaar ci la ñu bokk te ñun du ñu yaafus lu ñu bokk kenn duñu si jëkk kenn duñu si jiitu te kenn duñu si gën a liggéey ñu nga ca Benno Bokk Yaakaar ñu ngi cay def la ñu mën bu soobee yàlla Ousmane Tanor Dieng bu bëggoon nekk candidat assemblée nationale kon dinañu woo ñun bureau politique ne lii mooy sama position parce que musul def dara te waxtaanu ci ab bureau politique te fi ma toog di wax ak yéen woowu ñu ne ñu lii laa bëgg woowul comité central kon pour man candidature Ousmane Tanor Dieng nekkul à l'ordre du jour rawatina moom ci boppam nee na bàyyi na assemblée nationale jox na ko jeune bi nekk Mbour kon wax jooju kay waratuñ ko sax posé lu passé la. quant à Moustapha Niass bu bennoo bokk yaakaar ne Moustapha Niass mooy candidat ñun dañ koy voté parce que ci la ñu bokk loolu du kee débat boo xam ne war nañ ko posé. mu mel ne xëccoo bi ci kilifteefu assemblée nationale mu ngi wéy El Hadj foofu la ñuy daanelee ci xibaar yi. asu maa lay gërëm bu nu bëggoon rek jàmm xëy na dañ koy jox ku neutre ku mel ni man wala gisoo loolu. nañu <laughs> neex torop ñu baax ci ma jàmm. yaa Oustaz teg ci wet ga bu boobaa mu ne xelal ci wàllu diine ji Oustaz Mor assemblée nationale wàllu ndaw nekkal askan ci penc lu ci diine wax. waaw xam nga El Hadj dafa am loo xam ne ndaw a ci gën. Mhm. boo yónnee da nga yónnee ndaw surtout ndaw lu jàng te yar ko mhm. foo ko yónnee la nga soxla dina ko am mhm. te loolu mooy li gën am solo moo tax euh, diine day bëgg toujours deret ju bees tàq xel mu bees tàq ak yar bu mat sëkk. très bien mu mel ni nag ren xam naa ni nelaw du fa am de li gars yi dégg ak législative yi romboon Aziz gars yi nañ soppi non di fokk ñu soppi El Hadj lii ngay wax euh, euh, ndaw li dafa am solo ndax mag olof yi nee nañu euh, dem gànnaar maga ca baax wala ndaw lu sawar mhm. ndaw sawar te am xam-xam bu ca boolee yar mhm. mënoon ko dénk lu ne donte màgget wala mag mat na ba cim réew wattan ko fa waaye di ko laaj xalaat léeg-léegi waaye génn ko ndax màggat toog nelaw da koy yomb ak fàtte jërëjëf Aziz ñu daal di yër ñun temps bi lan la ñuy réserver dina tawam dee tàngoor yoor wi naka noonu ak soxna Dieynaba Seydou Ba laata ñuy dellu si ci plateau bi ànd ak Assou Mbène ci xëti yéenekaay yi asalaamaaleykum euh, mbokk yi di leen dalal ak jàmm kon euh, ci météo wu tey jii ñuy naa la bu baax Khadija Sane Gueye yow ak ñi nga nekkal ci plateau wu yeewu leen yeewu bi nag yombut waaye xam naa ne yow moom tàmm nga ko euh, kon tey lu ñeel wàllu météo Khadija Sane Gueye lu ñu mën a jàpp mooy kon lu ñeel taw mi dana xaw a rek daal di wàññeeku tuuti ci digg dëkk bi waaye tamit ci soow Sénégal waaye nag mu ngay wéy di gën di wane boppam ci dëkk yi ci mel ni Kédougou Kolda Sédhiou maanaam ci bët Saloum bi ak ci digg dëkk bi waaye nag euh, xibaar gi neexul nag tey jii mooy ne température yi danañu yéeg tuuti bu ñu ko waxee nag mooy dañuy rek daal di xalaat lu ñeel wàllu koor geek yi ni mel kon température yi dana xaw a yokk tey jii tuuti ci ajuma ji waaye nag ba léegi minimal bi ñu ngi koy rek daal di am ca Kédougou Kédougou mi am kon euh, ñaar fukki degré ak benn ba léegi maximal bi maanaam température yu gën a mag ci suba si mu tàng lool Hadjasson Gueye tàng lool ñaar fukki degré ak juróom-ñaar la ñuy am ci euh, suba si euh, fii ci Ndakaaru ñuy am ñaar fukki degré ak euh, juróom ci suba si ci ay ci mel ni Louga Linguère ñu fay am ñaar fukki degré ak juróom ci diggu Sénégal Kaolack dina am ñaar fukki degré ak juróom ci diwaan yu ci mel ni Ziguinchor Kolda ak Kédougou am ay température yu mel ni ñaar fukki degré ak juróom-ñett ci ngoon si nag wax naa leen ko tàngaay gi dana yokk ci ay ci mel ni Matam fanweer fanweeri degré kon ak juróom-ñett mooy am ca diwaanub Matam tàng loolu euh, fii ci Ndakaaru euh, météo daal di fësal ne ñaar fukki degré kon ak juróom-ñaar moom mooy am ci ngoon si euh, bu 15 heures yeneen température jàpp leen ñaar fukk fanweeri degré ak juróom-benn itamit cay diwaan ci mel ni Diourbel fanweeri degré ak juróom-ñaar cay diwaan ci mel ni Louga Linguère ci digg dëkk bi Kaolack am na fanweeri degré ak juróom ba léegi li duppee mousson di ngelaw gi indi taw gi mën wéy kon euh, di gunaanaat def lu ko neex ci ci Sénégal gi yëpp loolu moo tax nee nañu ay taw danañu ko am kon ci bëj saalumu euh, Sénégal ci diwaanu ci mel ni euh, Kédougou Kolda kon ak Sédhiou waaye tamit Tambacounda ci digg dëkk bi tamit météo daal di fësal ne Diourbel itamit dana jot kon wàllam ci taw yooyu le waaye ab dal la ñu daal di nemmeeku kon ci bët gànnaarub Sénégal ci diwaanu ci mel ni Podor ak Ndar fii ci Ndakaaru nag météo daal di fësal ne mën na am kon ay risque de pluie waaye waaye nag ay risque de pluie isolé lay doon loolu moo tax mu ne kon euh, naaj dana am waaye tamit euh, lu ñel wàllum nuage kon euh, ciel bi dina rek daal di couvert saa saa kon mu daal di am mu daal di am lii di kon ay niir waaye terewul la ñu naan kon ngelaw gi nga xamante ni dafay ànd ak guus danañ ko rek daal di nemeeku fii ci Ndakaaru ñu ñëw ak yéen mbokk yi ci wàllu géej gi géej gi moom dana fees kon bu 9 jotee ba te ñeent fukki simili ak juróom géej gi kon dana wàññeeku bu baax a baax bu trois heures jotee ci ngoon ba teg kon euh, juróom fukki simili ak juróom waaye nag géej gi ma ngay woy euh, direk yëngu bu baax a baax ci diggante Dakar jàpp Saint-Louis jaarale ko Lompoul Fass booy ak Kayar euh, dina dal ci diggante Dakar ak Ziguinchor kon suñu mbokk mool yi bu ñu fàtte seen ceinture kaaraange Hadj San Gueye nag lu ñeel wallu jant gi ba léegi nag ma ngay gën di yéex a jóg tey jii kon yeewoom jàpp nañ ko bu 6 heures jotee ba tekk juróom fukki simili dana soow incha allah bu 7 heures ci ngoon jotee ba tekk ñeent fukki simili ak ñaar mu doonoon météo wu tey ji ajuma ji gërëm leen bu baax kon ci ànd bi ngeen ànd ak uh, yeewu leen ba altine incha allah. Dieynaba Seydou baax dana koy gërëm bu baax yeewu leen asu faw ñu yee gars yi neneen ndax am na fi sama gars yi ku xëy. tubay jàng bu ma bokkul waaye du ma wax tur wa yéen kaay yu nu xëyandool dina ci bokk sunu euh, bos observateur Asoumbène ñu doon rek ak euh, observateur bi def ci xëtam li nga xam ne moom mooy xëccook njiitu assemblée nationale mu mel ne Moustapha Cissé Lo dellu na ginnaaw ci candidature am ginnaaw waxtaan woo xam ne da ko séq ak Sall waxtaan woowu nag ki ko dox mooy Arona Dia naka noonu Galas Koltom ñoom ñoom ñoo ko teewee woon Macky la mu wax Cissé Lo mooy perte qui te nuire maanaam du ma def lenn loo xamante ni si war na laa mën gàllankoor ñu ngi koy fekk ci xëtu l'observateur lenn loo xam ne mu ngi ba tey ci xëtum l'observateur mooy jëyee ji nga xam ne amoon na fi ca Sàngalkam ba ñu boomoon fa euh, Malick Ba Malick Ba bàyyi ci ginnaawam ak njaboot biñ ko boomee nag ki nga xamante ni si moom mooy doyen des juges yëkkati na ay kàddu la mu wax mooy mënta atte mbir moomu lee ba tey ci xëtu yéenekaay bii di l'observateur ñu gis ci ki nga xamante ni si moom mooy Seydina Kane ginnaaw ba mu jógee ca bopp lekk moom nag am na nombo tànk bu bees ndax moom la ñu def ministre conseiller chargé de questions de l'énergie loolu mu ngi nekk ba tey ci xëtu l'observateur ci xëtu l'observateur ba tey keneen ku ñu fay nemmeeku mooy Baye Mbañoon Baye Mbañoon di mbër la mu wax mooy gaynde laa goo xam ne dañu ma gaañ ñu am yaakaar ne rek gaynde bu ñu ko gaañee day gën a soxor mu indi lu bees ci saison bi nga xamante ni si moom la ñu la ginnaaw l'observateur ñu jàll ci le populaire ci xëtam muy def ak xayma goo xam ne plan ñaar mu ne plan tàkkal lakk na ko ci juróom benn weer ne leen loo xamante ni si ay milliards la waaye bi yoon lu ci ñaar la toll ki ko lakk mooy arène bi loolu yëpp mu ngi nekk ci xëtu le populaire ci xëtu le populaire ba tey wax ci koor gi lam ñu xamal mooy waxtu woor wi dina nekk fukki waxtu ak ñett yoo xam ne da koy toog doo ko lekk doo ko naan leneen lu nekk ci populaire ba tey di tiis wi dalaat ci këru taskatu xibaar yi muy vieux Magor Fall nekkoon bindkat ca populaire ko aljana ginnaaw le populaire euh, libération libération dellu si li nga xamante ni si Abdoulaye Wade bàyyi na ko ginnaaw muy ñetti junniy milliards ak yu teg loo xamante ni si ci wàllu bor la nga xam ne moo ñu ko bàyyee nag ne héritage ne ndono mooy Abdoulaye Wade ba fi mu nekk ni nag lañu ñu xam ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur mooy bor boobu yëpp mu ngi mujjee am wala bokk li ëpp ci bor bi mu ngi mujjee am ci atum 2011 ginnaaw libération ñu jàll ci Walf Walf Sport dellu siwaat ci diggante combat bi di Modou Lo Gris Bordeaux Walf Sport nag daal di def jàngat daal di wax li indi jafe-jafe ci ñaari mbër yi mooy kenn ki dafa ragal keneen ki mbootee ko benn wet keneen ki ne moom poids bi nga xamante ni si moom la kenn ki am moo yóbbu woon fur faraam ba tax euh, liggéeyul Walf Sport geneen jàngat goo xamante ni si def na ko mooy combat yi nga xam ne ñu ngi xaar Modou Lo wala bokk Gris Bordeaux ñu jeexalee suñu lamb ak euh, face à face bu mujj diggante Gris ak Modou Lo mu mel ne tension ba ma nga fa des ba tey Gris la mu wax mooy Modou Lo mooy chouchou CNG maanaam CNG eh, dañu ko bëgg leneen loo xamante ni si yëkkat ni ko ci ay kaddu ci xëtu suñu làmb mooy kaddu yi nga xam ne Gris Bordeaux mu ngi ko jëmale ci Balla Diouf nee na dafa gis Balla Diouf mu di ko yëddu di ko filmer keneen kaddu gu ñu fekk ci xëtu suñu làmb muy kaddu ku Modou waaye moom dafa mel ne combat wam diggante Gris Bordeaux jeexagul ndax la mu ko wax mooy eh, maa la dàq bëree li ma gën a sonal sax mooy eh, damaa jot ay perfusion bi ne benn jour moo des ci làmb joojule ku ci nekk nag El Hadj Assane daal di yëkkati ay kaddu wax li nga yëkk askan wi moom li ñu yëkk mooy combat ba jëlee wuñ ca mbégte mu rëy. muy lu wér asu ni nga ko waxee mbetteel la nu ci jëlee am sax ñu sikk arbitrage bi dégg nañ ci Alioune saar di ci leeral ci yoon wi arbitre yi léeg ñu jox leen ni daan ñoom it dadul siiw rek xëy na mu mel ni daal làmb jàngoog waaye lépp ci bayre bi euh, moo ko waral yow saas ak asu xam naa dañuy tàggu ak yéen file euh, du ñu tàggu yow nag ca dénk ko gaay euh, yenn ci conseil yi ci koor gi nga xamante ni am na ci mbokk ci dugg tey am ñu ci fas yéene dugg ëllëg incha allah. waaw xam naa ñaanal leen ñu dugg ci jàmm yàlla nangul nu ko waaye aussi tamit ñu góor góorgóorlu ci parce que corps solidarité la. Mm-hmm. Euh, surtout dimbaleente ci sunu biir. ku ne koo tane dëkk bi ni mu méttee ku ne koo tane rek nga mën ko dimbale ci xëdd dimbale ko ci ndogu mm-hmm. dimbale ko ci yenn dépense yi bu nit ñi wàccee di ñibbi kenn ku ne romb ci yoon wi te mën ko yóbbaale mu dem teel a ndogu ji këram nga dimbale ko ndax yàlla fay la yu macha allah waaye di tàggu foofu nag ñëpp mm-hmm. macha allah yàlla may ñu dajawaat ci yeneen jotaay xaj abdu yaa rabbi euh, asu benn ñu lay ñaanal koor jàmm wala koog ko ci di ñaanal ñëpp kooru jàmm di leen jaajëfal ci ànd bi ñuy ànd ci subateelu ko àjjuma ji saa su ne muy nekk mbégte ci ñun xam naa ni mu nekkee mbégte ci ñun mhm. yi jaa ngeen Assou yaa Oustaz Mor Thiam ñu lay gërëm mbokk yi ni ngeen ko seetloo Aziz dugalu ci làmmiñam moom bu nekkoon rek day reculer <laughs> def ni mbëri dem ci saaku yi ñu daal di jàll ci pàcc beneen wàllu xar fa fuufay colonel Momar Gueye laata ñuy dalal Bessel Bass ci wàllu consommer Mouhamad Ndiaye